jaajëf jaajëf maa ngi ñëw de asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi ziar di nuyu ñëpp it tey ma ñëwoon ñi waxtaan mooy ci li ma def ci titre bi waxtaan ak patriote yi tuuti waaye waxtaan tamit ci gouvernement bu bees bi gouvernement bu bees bi yàlla def na ni taxaw na dañu doon ne amaan na dañuy jël tuuti recul dañu ne woon dañuy jël tuuti recul pousse tuuti di xool di déglu pour xool suñu gouvernement bi fan la jëm waaye randu bi nag bàyyi gouvernement bi ñiy seetaan gouvernement fàllu ñan ñan ñang jaajëf maa ngi ziar bi maa ngi lay delloo ziar bu baax fàllu dama ne recul bi baax na ci buñ ko jëlee pour bàyyi gouvernement bi liggéey waaye recul bi tamit du recul boo xam ne dañu war a sori gouvernement bi ba tax na balaa may commencé ñëw di félicité di ne waa Gambie wax dëgg yàlla ak waa Mauritanie ñoo ngi leen di delloo njukkal di leen ziar bu baax gis nañ seen taxawaay bi ñu taxawoo taxaw bi ñu taxawu suñu président son excellence basiiru Diomaye fay ñi di leen ciy félicité rawatina suñu mbokk suñuy frère gambien yépp wax dëgg yàlla sigil ngeen ñu sigil ngeen Sénégalais yi rawatina nag patriotes yi ñu gis suñu frère patriotes yi ak suñu sœur patriotes yi fa nekk seen teeru ngeen seen président Gambien yi teeru nañu seen président teeru bu mucc ayib di leen ne comme ni ñu ko yàlla boolee rek muy Sénégal ak Gambie mu doon benn réew yàllaa ñu koy dëggal may ndokkeel Gambien yi di leen di jaajëfal di leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax su ma jógee ci loolu ma ñëw ñi waxtaan tuuti ci observation bi ñu gisagum fan yi muy am depuis bi ñu falee suñu président son excellence le président bassiru Diomaye Faye du ci ñàkk nag du ci ñàkk te te du lu ñuy bett waaw bettuñu nag ñun patriotes yi waaye li may faral di wax léeg-léeg bu dara di amee mu ngi commencé di am ñi noppendoo ko te ñun ñëpp gisandoo gis nañ ko xam nañu fan la ñu bëgg a jëm teewul ñu jóg nag waxtaan ak patriote ne ah lii la mooy ñan xam naa ni li ma seetlu ak li ma gis yéen ñépp gis ngeen ko te yéen ñëpp seetlu ngeen ko mooy dafa am benn genre

doon ay nit yoo xam ne jéem won ni ñoom ay nitu dëgg lañu ci seedeel président Bassirou Diomaye Faye ñi ngi koy seedeel waaye balaa maa ñëw ci seede bi ci nit ñooñu ma njëkkee am na li fi xew mooy président Bassirou Diomaye de bi mu toogee ba léegi semaine bële balaa moo commencé dem Mauritanie di génn di dem ci international bi li mu njëkk a def dem na këru kilifa diine yi dem na këru kilifa diine yi ñi ñi di ko rafetlu it di di di ko rafetlu loolu sax ndax ni mu demee tamit ziyaare këru diine këru kilifa diine waaye dem bi mu dem di ziyaare këru kilifa diine ñu ngi koy rafetlu ñi nangu ko waaye man ci sama gis-gis am naa ci xalaat doonte doonte rafetlul naa ko waaye am naa ci xalaat am naa ci gis-gis dama newoon am na lu gën ndegam baax na ndegam baax na dem na ziyaare kilifa diine yi te des na des na ñu mu war a dem yeneen kilifa diine yu mu war a dem ziyaare lu rafet la lool waaye ni ma doonee jullit dama gis ni am na li gën am na li am na li gënoon loola ndegam loola baax na ci sama gis-gis li gënoon yàlla def yéen mii di ma déglu di ma seetaan ak yow mi nga xam ne vidéo bi egseegul ci yow li gënoon mooy ak li gënoon a rafet li bu ma ne li gën rek mooy li gënoon a rafet ndeem ndeem ni mu demee ci kër diine rafet na waaye dafa amoon li ko gënoon am na li gën a rafet te ñun ñépp ñi seede woon ko ci amee bañ ñi bañ koo fàtte wala di doddoflu di doddoflu mel ni kuy fàtte xam nga patriote yi moom senegale yi moom <laughs> xam nga sénégalais yi léeg-léeg ñiy gëmm dañuy gis dëgg teg ci seen tànk <laughs> ndeysaan mooy suñu waajooju ndeysaan sénégalais suñu mbokk boobu xaw ma da ko joué film la woon mel ni ku xaw a wéradi ne réew mi dañuy gis dëgg teg ci seen tànk ñi gis dëgg dëgg ci seeni tànk waaye yàlla def na ci biir sénégalais am na ñi yàlla def ci ñoom am na ñi yàlla barkellu ci ñoom ñoom bu ñu gisee dëgg duñ ci dëgg seen tànk te duñ ci teg seen tànk ma jàpp ni ci ñooñu laa bokk ak fu dëgg mënta nekk nag dinaa ko dem waxi ji ak fu mënta féete nag même bu féete woon ci aras dinaa dem waxi ji ko ndax lu tax yàlla dëgg kese la bëgg dëgg kese la yàlla bëgg ba tax suñu président ba siiru Bassirou Diomaye Faye ndeem rafetlu nañ ko muy dem di siyaare kër diine diine yi kër diine gi mu dem siyaare suñu xalif yi mag ñi lu rafet la man maa ngi koy rafetlu waaye dama ne dafa amoon li gënoon a rafet loola li gënoon a rafet loola manaan yow mii di ma seetaan yow mii di ma déglu ak yow mii vidéo bi egseegul ci yow nga xam ko comme ni ma ko xamee amaana li may jàpp amaana munoo génn live te xam nga ko te mu doon dëggu si yow nga xam ko amaana mën naa laa dencal mën naa laa nangul yow mii di ma seetaan di ma déglu ak yow mi nga xam ne live bi egseegul ci yow ma wax la ni lii xam nga ko comme ni ma ko xamee moo di la président basiiru Diomaye fay man dama newoon li gënoon a rafet te lu gënoon na jekk te mu doon màndute te mu doon màndute ci lislaam ndax ay jullit lañu suñu référence ci lislaam la li gënoon a rafet te mu doon màndute laay wax de te mu doon màndute ñun ñépp ñi tegoon ci suñu bët mooy man dama jàpp ni bu dee ay jullit lañu te ñi màndu dëgg le président Bassirou jomaay fay génnam bu njëkk di dem ci kër diine yi kilifa diine yi man li ma jàpp mooy li gënoon te gën a jekk te gën a rafet te mu doon màndute mooy mu tàmmalee woon ko ci këru église bi jàngoo bi ndëgam jullit laa ndëgam lislaam ak seydina muhammadu ak seydina muhammad sallallahu alayhi wa laa gëm dama jàppoon ni ci màndute ak li gënoon a jekk te rafet ci bëtu ñépp mooy mu tàmmalewoon ko ci këru diine chrétien yi waaye bi ma gisee mu génn njëkk a dem ci këru këru diine lislaam jullit yi dama defoon ay recherche tamit dama defoon ay recherche ne naka la mun a nekkee nii nan la munee jóge Ndakaar war a dem ci këru diine jullit yi ziyaare fa ndokkeel leen baalu leen ak baalu leen ak te tàmmalewu ko ci këru diine chrétien yi waaye yàlloo yàlla bi ma defee samay recherche ndax jamono jooju affaire bi metti woon na ma trop may jullit nag may jullit nag màndute moo ma puusoon affaire bi metti woon ma mais bi ma defee sama recherche laajte dañ ma ne yónnee nañ ma sa ay vidéo yónnee nañ ma sa ay vidéo pour wone ni ci këru catholique ci këru jàngo bi ci këru jàngo bi la ji recherche yi ma def daf dañ ma won ba indiqué ma jox ma ay vidéo ni le président Bassirou Diomaye Faye génn bi mu njëkk a génn dem ziyaari kilifa diine yi a ndekete ci këru église bi jàngo bi la njëkk a dem giseen teeg dem ndokkeel le cardinal comment dirais-je notre cardinal là le cardinal Benjamin Ndiaye ñu ne foofu la njëkkee mais comme foofu la njëkkee comme kat chrétiens yi ñoom amaana dafa am ni ñu mel ci biir réew mi ñi rafetlu ko loolu sa ñi di ko rafetlu loolu sa ndax dama ne yéen mii di ma déglu ak yéen mii vidéo bi egseegul ci yow ci yéen kiy wax ak yéen ab jullit la xaqan waaye seede seede ci lu rafet ci jullit moo xam ki nga bokkul ak diine dafa rafet lool ci seede gu rafet jëf ju rafet dafa fekk ñu ne ñoom cretien yi nan la tuddati Benjamin le cardinal Benjamin Adrien Ndiaye moom moo bëggul affaire bi siou ni def ko à la douceur ñeu simplement bu dara que bu dee nous le cadre le cardinal de Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye mon bi ko président Bassirou Diomaye Faye buggee dem séti ndokal ko jéggalu ko ndax génnoon na fi génn goo xam ne mu waxoon fi luy dëgg ñun ñëpp sénégalais yi ñëpp gis ko amoon na ay wax yu ñaaw yu ñu doon teg ci kawam kon président basiru Diomaye Faye bi muy njëkk génn pour dem ziyaare kilifa yi ci këru chrétien yi ci diine chrétien yi la njëkk a dem ndax loolu moo jaadu ci ñaari façon benn bi ñoom la bokkandoo di fanaanoo ndakaaru ñoo gën a jegandoo ñaareel bi bi ci gën a am solo mooy bu muy métti métti métti métti fii xale yi di reyanteeg di reyanteeg gouvernement wu Macky Sall xale yi Sénégal bi di reyanteeg gouvernement wu Macky Sall xeex bu métti métti métti il est homme religieux bu génn taxaw joxoñ Macky ñun ñépp ñi gis ko premier bi defoon nako ci xeex yi bu muy metti genn wax joxe position deuxième bi bi maki pousser élection yi mom le cardinal le cardinal ad le cardinal Benjamin jai mo genn sénégalais yi sénégalais yépp même kuy dof doflu sa yëg nga ni cardinal bi wax na président Macky Sall te waxu ko ci souf waxu ko ci souf waxu ko ci ruk dafa genn ñëpp yëg ko gis ko nous sommes mu ne élection yi bu ko bu élection yi constitution wu sommes sénégalais ñi nous suñu Nous, ñun sénégalais nous sommes patriotes kenn le cardinal le cardinal le cardinal Benjamin Ndiaye def ko ce profil gaay dama len ni lolou démb la woon démb bu fi ben dodoflu bu fi kenn dodoflu yakani dang koy fàtte démb la il est le seul il était le seul homme religieux bu génn joxoñ mag yi àddina bi yep gis ko ne ko ne ko élection yi bu ko puus te da nga wara respect da ngay respecter calendrier da respecter constitution bi jullit ki yëpp lu ci ëpp ci jullit photo photo cardinal bi def profil la bu fi kenn vous dof lu bu fi kenn dof lu day luy day luy même bu métti yàlla daf ñoo dëgg sant ñu ñiy seede dëgg rek te yàlla képp a tax man je m'en sama kër sëriñ la dem sama kër tarixa la dem je m'en fous quand il était bu muy tàng jër jër jër sama kër sëriñ kenn ŋaangul gémmiñam wax dañ waxante dëgg bu muy metti fii di tàng jër Vous me mettez des guerre. Ma qui pousse l'élection, il faut que ben cœur nous 99% des musulmans. Sur ces 99% de ces musulmans, il n'y a aucun de nos guides religieux qui n'y a pas de guides qui comme comme l'église, le cardinal, le cardinal. Amour, fille, nous faisons des bonnes choses. Moi, je suis le président Bassirou Diomaye Faye bu demee kër diine du lu may bàqu du lu du lu may man damay jàpp ni que c'est normal damay jàpp lu normal la te nag loolu lépp tamit ma dellu ci di leen di santi yéen xale yi loolu lépp maa ngi ñëw di leen di santi yéen xale yi yéen jeunesse su sénégalais bi ma ngi delu ci di leen di tirer chapeau di leen di sante bu baakha baakha baakha a baax a deñ mukk di leen di gërëm di leen di sante victoire bi mom nee na la bu ma gisé ab doomu xaram bu feul bëgg jël victoire yu jeunesse bi bu ko jox ay mak ay kilfa diine ma jamalok yow téegal sa victoire bi victoire yu jeunesse sénégalais yi la kenn du ko fokkati ci xalé yi mangi xaar bi gis ab doomu xaraam buy génn bëgg jël victoire du jeunesse bi bu ko jox ci borom grand bu buy di ngeen fii ngeen may fekk ndax sénégalais mom dañuy dodoflu dañuy dodoflu dañuy dodoflu rek di ngeen ñu fi fekk cette belle victoire là xale yi jël ba fal seen moromu xale koku katan gogu barke bobu yàlla da ko wacce ci xale yu sénégalais kon bu ko fi jéem fokati ak bo bokke passif

di ko ne jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla fay ndax bu muy métti bu muy métti mu tàng kenn ñemewul kenn kenn ñemewul joxoñ Macky yow yaa génn ne ko hee yow yaa ko ne droit yow yaa ko wax lu lislaam nangu yow yaa ko wax li église bi nangu yow yaa ko joxoñ démb la na ko fi nit weddi na ko fi nit weddi démb la woon ah. du ay ati at du jamono ñoom sëñ du jamono bi may am du jamono ñoom sëñ Tuuba du jamono ñoom eh, Seydina Alaaji Malick du jamono ñoom bàyyi Niass dama leen ne woon ngeen teg seen bët yéen ñépp mais nag bi ma gëstoo balaa may live indil nañ ma vidéo boo xam ne may ndokkeel président Bassirou Diomaye Faye di ndokkeel président di ndokkeel la premier ministre président Ousmane Sonko fàttewuñu ko def nañu lu rafet ndax maa ngi dégg ci kii sa dégg naa siré si ndeysaan siré si am na sénégalais yi am xel ne ah li lu munoon daal comme Dakar ñoom ñëpp wax nañu waroon naa seeti kii mais comme catholique yi ñoom ñoo bëggul woon ñoom bi ñuy njëkk a dem ñi def ko ñi wane ko ci tele ñëpp gis ko catholique yi ñoo préféré loolu ñoom bokk ñoo am ñun jullit yi waa jaa ngi ñëw kër xalif ne ko ñëpp yëgandoo ñëpp buubandoo ñu ne sama kër sëriñ la ñëw kii sama kër xalif la ñëw katolik yi ñoom bugguñu loolu la <laughs> fëgg jaay la sa <laughs> l'islam fëgg a jaay la moom laay tuddee l'islamu fëgg jaay <laughs> catholique yi may yëgal leen yéen ñëpp patriotes yi président Diomaye Fay ak le président Ousmane Sonko xam nañu lépp lu ñuy def yal na leen yàlla aar bi bi le cardinal monseigneur ma koy wax ñom Siré si Siré si ñoom it nañu gestu comme ñomi ñu ngi biir foofu ñu ngi wax ci radio yi nañuy gestu ñuy ñew di tok ci télé yi nañu balaa ngeen di ñëw di toog ci plateau télé ngeen ne ni ma wax leen ni le président basiiru Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko dem nañu ci këru chrétien yi këru kii bi lañu njëkk a dem ziar ndokkal ko jéggalu ko baalu ko ak ci moom la njëkk a dem démb dégg naa Buuba tamit di wax moom it wax na nee ne laayeen yi ñoom ñu ngi biir Ndakaar yeewoo ak président bi chrétiens yi église bi mu ngi biir Dakar mais présent bi bu muy jóg dafa dem ziare ji dafa génn Dakar dem ziare ji xalifa yi Touba jóge fa dem Tiwaawoon mais ñoom jàppewuñu ko dara loolu nit du ko jàppee dara du yoon man gisuma gisuma mu jóg dem njëkk ziare ji moo xam <laughs> moo xam bundu moo xam bundu la dem njëkk a ziare moo xam fuuta la dem njëkk a ziare man saa mettegal mais li may intéressé comme xeex bi buñ ko doon xeex di jaayanteeg nguur gi ñëpp tek ko fi ñëpp gis ko kenn benn kilifa diine génnewul joxoñ Macky église bi kese diine église bi muy seen muy seen guide religieux muy seen xalif ci dakar ci Sénégal moom mo jóg joxoñ Macky Sall ne ko élection yi doo ko fi pousse té nga respecter constitution bi il est le seul guide religieux du Sénégal kii bu def loolu te bokkuma maak moom diine li ma war nag li ma war te yàlla sant ma ko mooy da ngay seede rafet pour ëllëg yoomal kiyaama xooluma ndax jullit la xooluma ci tarixa bii laa bokk def na nii sama tarixa ça m'intéresse pas acte bu gën a rafet te yàlla gis ko yéen mii di ma seetaan yéen mii di ma déglu yéen mi nga xam ne vidéo bi egseegul ci yéen ni ngeen ko ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee noonu ngeen ko gisee moo tax may dellu si ji di seedeel eglise bi di ko ne jërëjëf di ne jërëjëf catholique yi yéen yu ñuy tuddee nu ñu leen di tuddee souvent ay cinq pour cent mais seen doxalin ak seen jëfin yaakaar naa l'islam noonu la ko bëggee l'islam kuy topp l'islam noonu la ko buggee lépp day sell day rafet soxalawul sa nit ñi di ko yëg waaw ma di leen di wax yépp ñoom foofu lañ ko tàmbalee foofu la njëkk a dem ziaré ko ndokkel ko mo wax len ko waye ma ne li ci gëna a neex nag li ci gëna neex nag jeunesse bi moy xalé yi Sénégal cette belle jeunesse sénégalaise yàlla na leen yalla ar yalla bu seen yaakar tass cette belle jeunesse sénégalaise dama ne yàlla bu seen yaakaar tas te billahi wallahi tallahi seen yaakaar bii ku ko bëgg a tas ñu jëfalante koogu moom ci saa si man maa leen ko waatal suñu digganteek suñu borom ndax àddina lépp lu am jàngat la lecture la nga xam pour mun a teg sa tànk boo gisee may remercier musuma félicité musuma félicité bu ma tàmmalee live

gën a adoore doon sénégalais yooyu loolu yéen a ko jëf yàlla ci yéen la ko def gaa yi gaa yi xale yi xamu àddina jàngat leen lii de jàngat leen lii de bu leen fal ne ngeen ne jeex na de xoolal yàlla daf leen ko wàcc jox leen ay xel nag lii nag jar na jàngat ngeen xam ko gaa yi ñan ñooy félicité tey ñan ñoo nekk léegi di wax ci président Bassirou Diomaye ku yaru la ku teey la ku baax la vraiment ku am diine la kan ñan ñoo koy wax doomu xaraam yi bañoon démb doomu xaraam doomu kasara yi bañoon démb ñoom ñoo nangu tey fekk yéen fekk yéen patriotes yi fekk yéen jeunesse sénégalais yéen bi ngoy yéen bi ngeen koy nangu yàgg na yéen bokk ngeen boo leen seetloo ci histoire dellu leen ci histoire bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccee doon commencé di wax di wax moom yàllaa ko yónni exemple laa leen di jox bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccee ne moom yàllaa ko yónni Jésus Christ Jésus Christ bi muy wàcc ne moom yàllaa ko yónni yàllaa ko yónni ñi nangu woon ñëpp ñi teeloon na nangu ñi teeloon na nangu mais am na ay doomu xaraam yoo xam ne dem nañu ba Jésus Christ génn àdduna dem nañu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina nanguwuñu bi yonent bi génnee àdduna ci lañu doog a nangu xaw ma ndax dégg ngeen li may wax wala déggu leen li may wax loolu jeunesse su Sénégal yéen jeunesse su bi yéen bi ngeen di teel a xam ni Bassirou jomaay Faye ku yaru la yéen bi ngeen di teel a xam ni Bassirou Diomaye fay jullit la yéen bi ngeen di teel a xam ni Bassirou Diomaye Faye ku màndu la yéen bi ngeen di teel a xam ni Bassirou Diomaye Faye culture sénégalais cent pour cent moo nekk ci ñoom fekk na mag ñi ñëpp ñi ñi lekk katu riba yëpp yàlla deful xam-xam boobu yàlla deful toqatul yàlla toqalul loolu si seeni yuur ba ñu koy xam <laughs> quelle belle jeunesse quelle belle jeunesse gars yi jeunesse bi laa yéen bi ngeen di yàlla nattu na leen yàlla nattu loolu nag lu leen ko jàppale bi ngeen teel yàlla def ko seen xel ngeen nangu ko teel koo nangu teel a nangu dafa mel ni yonent bi bu muy njëkk a ñëw di woote lislaam di woote lislaam ñoo xam ne lekkuñu daawuñu lekk riba ñoo xam ne af riba nekkul ci seeni deret ñoom teeluñu koo nangu nanguwuñu ko ñoo xam ne seen deret dafa sell te riba jaaru ci ñoom bi yonent bi njëkk bi yonent bi wàccee di woote sa ñu ko njëkk a nangu rek jàpp leen ñu ñoom luy riba nekkul luy riba nekkul ci seen deret jaxasoowul ñoom ñoo njëkk a nangul yonent bi man nu exemple boobu laay xoolee mbir mi xale yi yàlla dafa nattu Sénégal ne xale yi ñoo njëkk a nangu bi ñoo njëkk a nangul président Bassirou Diomaye fay ni ku baax la ku am diine la ku am diine la ku yaru la jeunesse bi ñoo ko njëkk a nangu an président Ousmane Sonko ne leen ñii joxal leen droit bi ne leen kii la ñoom ñépp ñi nangu ko jeunesse bi nangu fekk nag màgget yi paa yoo xam ne riba baa ngi seeni direct ñoom mënuñoo nangu ni kii la kii la kii la journalistes yi les chroniqueurs yi doon toog Bassirou président Ousmane Ousmane Sonko génn def vidéo balaa ñu koy tëj mu ne leen li ma leen di seedeel ci waa jii li ma leen di seedeel ci kii kii ma joxoñ ku sell la ku set la ku set la ku maanu la du sàcc du lekk lu xaraam bi koy président basiiru Diom bi koy président Ousmane Sonko di wax doomu xaraam yi ngay gis léegi ñiy génn di seede lépp ñoo ko doon bow ngawti ngawte comme ay xaj parce ñoom dafa fekk ni deretu riba bi riba bi ñu leen doon jox riba bi lu xaraam bi doon lekk moo doon yëngu seeni deret ñooñu mënuñu koo nangu tey ñoom ñoo dellu si di seene fekk yéen patriotes yi fekk yéen jeunesse bi raw ngeen fekk ngeen yéen yéegi ngeen egg ngeen <laughs> yàlla du nit billaahi yàlla du nit billaahi yàlla du nit من دما بك دما بك كي جانس بي بالله دما بك كي جانس السنغالي خالي نال اي ماك نيك سي ريومي اي ماك نيك سي ريوم ني لين دي تودو نا نك ني ام غالون بو ني نك سي بير ريومي مونو ньо فخي لي لو سيل لا مونو ньо فخي بي گيس مونو ньо فخي بي سين خيل مور سيني بت نده ndax riba ba rek riba baaxul gay gay riba baaxul gis ngeen xaalisu ger riba limuy def ci direct bo doon wu sa yalla dalay lay wàcce baaxul dañ leen koy neub nak duñ leen koy wax Job babakar ngi Marta jaata jaata jaata Assane de Badji waaw <laughs> maa ngi leen di ziar yéen ñëpp demee frère Sénégal day toll foo xam dañuy waxante dëgg balaa affaire yi balaa ñuy këf victoire bi balaa ñuy këf victoire bi ci loxo xale yi ñu wax leen ñu continuer saa yu ñuy live ñu rappeler fan la victoire bi jóge ci gone yi la du ñu bàyyi benn màgget bu fi lekk ay riba deretu riba nekk sa yaram poson ñu naan la yow yaa jël rii yaa tax victoire bi am kenn lu dul yéen xale yi dañu bàyyi benn mag këf victoire bi ci gone yi maa wax loolu seetlu leen ko li may seetlu li ma gis gis ngeen ko li ma ci xam du man du ma waliw doo leen waliw lu ñu yàlla tegal nii jaxanal nag ku fi dodoflu na nga ne da gëmm jéggi ko boo gëmmee jéggi ko sa problème la mais ñun dañuy ubbi suñu bët ne jag xool li ñu yàlla tegal lan ñu koy wax di ko fàttaliku pour bu bu fi benn màggetu këf victoire gone yi dëgg rekk moo wóor te jullit jullit xakkan dangay wax dëgg te yàlla rekk a tax lu fii lañ leen doon xas ay xale yi réew lañu amuñu yar ces chroniqueurs là ñi ngeen di gis ñoom doomu xaraam Aline Sow yi léegi <laughs> léegi ñu ngi bëgg a ñëw converti c'est des gens yoo xam ne c'est des gens yoo xam ne nangu ñoo liggéey ay genre góor jigéen yoo xam ne lu xoolal lu nooy rek ñiy ñëw di tëdd seeni kaw rek la ñu bëgg ñi leen di jox xaalis ay ñoom genre ay Aline Sow waaw boo fa jógee nga dem ay Aïssatou Diop Fall waaw may wax patriote yi ma ne li yéen patriotes yi sénégalais yi yéen mii seen ndey sëy yéen mii juddoo ci juddoo gu rafet waaw ab ab benn jéegu jigéen buñ daan juutal ñu wax ko du patriote moo génn wax ko du ko farak Ousmane Sonko moo génn ne ko su ma ñëwee dama lay juutal ab ponkalu maamu jigéen bu yor jëkkëram bu yor jëkkëram ab beneen ponkalu góor taxaw am sañ-sañ ne ko su ma ñëwee dinaa la juutal mooy won ni juutal ba yàgg na loolu kenn mënu ko effacer suñ ko del leen vidéo bi ngeen denc ko doomu ay Aïssatou Diop Fall bu ëllëgee yàlla na gudd fan moom doomu Aïssatou Diop Fall ba gars yi li may wax nii nag da ngeen koy dagg dangeen koy dagg dama leen koy ñaan yéen patriote yi bu leen ma déglu nii rek mu yem ci yéen moo tax fële neex ma këru gone ya moo tax këru gone ya fële xam ngeen fi may wax këru gone ya mu neex ma mooy TikTok bi moom fu ma fa duggee rek gars yi dañuy dagg rek partage li may wax ni dagg leen dagg leen ko nu muy gën a gàtte ngeen dagg ko ngeen tasaare ko ba mu egg ci biir ci biir tuunu ay setu Jóob Faal dama leen koy ñaan nag man waxtaan rek indi leen loo xam ne yéen mun ngeen koo wax mais amaan na génnu leen wax ko man ma génn wax ko ndax li ma gis yéen ñëpp teg ngeen ci bët kon bu ma génnee di ko wax rek da li ma leen di ñaan rek li ma leen di sant mooy dagg leen ko rek ngeen koy partagé ba mu egg ci ñoo loolu dina ma dina ma faral di neex trop dama ne doomu ay setu joo faal man de li ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan loolu sax yàlla na ko yàlla may gudd fan ma ne gars yi yi amoon yu ñuy juutal ndeyam na fi ne xale bi bu màggee na bu bu buggee mel ni ndeyam di fontoo nit ñi di fontoo gor ñi ñi génneel ko vidéo yi ñuy juutal ndeyam ñi tëggatam ndax yaayam yaayam mooy dem léegi yaayam dafa bëgg a sote di ne noonu affaire bi basirou jomay Faye la du Sonko mais amul chance Pastef mom gouvernement bi mom kenn du fi juutal ndey jeeg yoyu kenn du len fi juutal ay Diop Fall bu fekkee nguuru Macky Sall sa tour ngi nga don joxe du juutu ñu la ko ci jàmbat rek fi mom amo chance fi mom di nga way di nga woyal président ba Bassirou Diomaye Faye di taggal di ko taggal ay maamam di ko taggal ku jur yaayam di ko taggal di ba dem tagg sa dëkk village bu mu dëkk tagg leen bu la neexee mais xamal ni sa tuun gi moom doo xoo bi ñu lay juutal ñu di ci sa tuun gi moom ay Diop Fall sa tuun gi moom patriote yi képp képp kuy deretam bokk ci patriote ci Pastef soxlawul sa tuun gi <laughs> xasaw na trop Aïssatou Diop Fall sa tuun gi moom ñële ñoom genre ñi mel ni Farba Ngom ñoom ñoo ko mën a ubbi nga juutu ñi tiim la ñoom ñoom mën nañ ko ñoom mën <laughs> ñoom mën nañ nga toleer demal taggal waa demal nga tàggat maamu Basirou Diomaye fayee demal continuer di xas président Ousmane Sonko mais ki ngeen di tagg tey président Ousmane Sonko moo ko ne nii moo ko joxoñ baaraam bi ne ko yow a demal yow a tu es le porteur passeur demal loolu nag da ngeen ko bëgg a génnee ci Ousmane Sonko mais du deñ may wax Aïssatou Diop Fall sa tuun ngi moom jéem koo gën a tëj fii moom du jàll fii moom du jàll fii moom ñii soxlawuñu tuun sa tuun gi moom fii moom mi di suyace mi di suyace c'est fini sa tuun gi moom ñëpp ko rekk a ci des te may ñaan yàlla nañu vidéo yi nañ ko denc pour fi sa bu fi sa doom màggee bu fi sa doom màggee yàlla na ko yàlla may wér sa doom ay sëtu Diop Fall yàlla na fi sa doom màgg yàlla na ko yàlla may wér mu dund fi yàgg fi lool ñu koy tegal fu ñuy juutalee ndeyam fu ñuy juutalee ndeyam di ubbi tuunoom gi ngir xaalis loolu moom dama la koy ñaanal wax dëgg yàlla loolu moom dama la koy ñaanal yàlla na fi sa doom gudd fan yow it yàlla nga fi yàgg lool sa doom bu demee bu jotee bu buggee yab fontoo ay nit bu buggee fontoo ab mag wala mu bugg a fontoo moromam gune ñi génnee ko fi ñuy juutalee ndey mu daal di daw si wax la ko ni dañ la doon député bi bi mu la doon juutal te doo ci mën sari ndeyam yow yaa ko def yaa ko liggéey ñoom Aline Sow ñoom ñu nga fële góor jigéen yi bon yooyu léegi Bassirou Diomaye la ñuy tagg may foofu moom awma lu may ragal ndax patriote yi de Pastef cadre yi xam nañ leen ñoom ñëpp Aline Sow mën naa wax ba yëy ay xuuram ci Diomaye fay mën naa seedeel Diomaye Faye ba ba ay xuuram du leen jege loolu dama leen koy teel a wax loolu moom na si seen xel dal Aline Sow bu ko neexee dem sanc sanc njaga ñaaw Sow bu la neexee demal sanc ji njaga du dañ la doon financé ngay xas président Ousmane Sonko di xas yow bi président Ousmane Sonko joxoon ñooñ Bassirou Diomaye Faye dellu ci vidéo yi lan nga doon wax ci Bassirou Diomaye Faye te yow yaay dellu si di ne le gosse sama rakk la le gosse est vraiment dafay yaru bi mu demee nuyu sama sëriñ su jootu gu mu nga di nga wax ba yëy sa xuur yi du tax nga jege ñoom Bassirou Diomaye Faye billahi wallahi man maa la ko garanti di nga wax nag ba yëy say xuur doo ko mën ay doomu xaraam kese kese kese ñoo nekk fii ay nit yoo xam ne nangu ñëw liggéey seen làmmiñ nañu yëpp léegi dañu bëgg patriote yaa ngi fi ñun mun nañoo défendre suñu gouvernement ñun mun nañoo défendre suñu président <coughs> ndax fii ngeen yor seeni télé seeni chaîne ngeen di xas seen suñu suñu opposants yi ngeen di xas président Ousmane Sonko di xas Bassirou Diomaye Faye di xas El Malick di xas Abass Fall

dañ leen koy wax de suñu rouleau compresseur bi patriote yi yor xajul ci mbindeef bi yàlla binde kon yéen da ngeen di sonnal seen bopp da ngeen fay ñëw may ñaan sama frère liveur yi yëpp ak ñoom ndongo ndongo <clears throat> ñoom ndongo joom yëpp gars yi maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ah, ngeen taxaw ngeen waajal ñu lii moom ay ñu ñu doon borom tuun yi ñu doon juutal yëpp non non du ñu mënal dara on s'en am nañ fi ben rouleau compresseur bo xamné ne rouleau compresseur bo mo fi dëjëti Macky bi ngeen doon ne Macky Macky dafa am expérience ci politique ñan ñoko fi génne rouleau compresseur bi ñu yor la kon Aline Sow soxlañ dem leen ngeen continuer seen liggéey ngeen continuer ñi ngeen doon faral on n'a pas besoin yeen ngeen ñi sédal ñun bi ñuy xam ni Bassirou Diomaye dafa yaru biko jeunesse bi di xam patriote yi di xam biko patriote yi di xam ni ku djubla yalla moko téla def ci ci yuru sénégalais yuuru xalé def ko ci xolu ni ki ki len président Ousmane Sonko jox mom la ku sell la ku set la yen nak y'en da ngeen tok ba mu falu ba pare ngeen dem da ngeen tok ba mu falu ba pare mooy wone ba léegi nangou len ko falin bee tax ngeen nangou ko ñepp tay muy muy khalifa ñoo xam ñepp tay ku fi sédé Fay lu lu baax dama ne képp bépp xalif bépp xalif tey mu toog muy seede ci Basiiru Jomaay Fay lu baax jàpp naa ni moom yàlla dafa muuroon ay bëtam lu leer la leen di wax parce que Basiiru Jomaay Fay judduwul keroog bi muy dem këru kérok bi muy dem kër xalif du keroog ndegam xale yi ñoo tok di xeex ba gëm ni ku sell la ñu am fi ay mag yu ñuy tuddee façon yu ne mag bu toog tey di seede di seede Bassirou Diomaye Faye ku yaru la ñun ci parce que ñun ñoo leen njëkk a xam ni kii ku yaru la kii ku màndu la kii ku baax la kii jullit la ñun ñoo yàlla loolu la def ci suñu xol yi nañ ko namu te nañ ko bàkkoo nañ ko tiit fii amul ben kilifa diine amul ben bopp xam-xam bu fi yor boo xam ne ni kii kii ñu joxoñ nit ku sell la ndagam ñoom ñoo mënul ràññee ku sell ak ku am diine ak ku yaru ci jamono bu mu yorul nguur déglu leen ma de <laughs> gars yi c'est paradoxal quoi <laughs> réew mi diine fëgg a jaay fi ne diine fëgg jaay man j'ai l'habitude de dire aux <laughs> Sénégalais ñun diine fëgg jaay lañu ñu yor ndagam jeunesse bi bi ñuy xeex di reyante ñu leen di door ay bal ay grenade di leen di dem di jàpp ñaata jeune lañu ñu ci biir kasso yi des milliers de jeunes ñom ils ont compris ni ki ñu leen joxoñ ni ku sell la ku mandu la jullit la ñi am fi ay kilifa diina qui n'ont même pas capable pour décortiquer ni waji ku sell la ku sell la ku jub la am diine la kañ nañ koy xam mooy bu mu faloo président rek ak ah, xam-xam booboo yomb nag <laughs> bu dee loolooy xam <laughs> dee loolu mooy xam-xam billahi man du ma jëbbalu ci yow xaar ba waa ji solu solu ba waa ji doon président dañu fal ko ma doog a indi ay seede yu baax ci moom dafa fekk man awma xam-xam non man kooku moom wax dëgg yàlla amul lenn lu ma lay jox ci sama diine amul lenn man damay bëgg a borom xam-xam nga njëkk maa xam lii di ñëw nga njëkk boo ne càkk même nit kii defoo ko càkk mais nga koy seetaan nga gis ko rek yàlla def ci yow loo xam ne boo ko gisee ne càkk ci tele rek di nga xam ni kii ku jub la wala ku jubadi la di nga xam ni kii ku am diine la di nga xam ni kii ku yaru la mais dëggam yow kilifa diine munoo décortiquer ba xam ko ci nit man lan laa lay toppee ban njariñ lay am ndagam man teel naa koo xam. bobu waji ji solowul yàlla defagu ko président waye yàlla ma ciy sant yàlla yéen xale xale Sénégal ma ciy sant yàlla yéen xale patriote yàlla dafa ñëw rek feug seeni bop feug seen bop duggal ci ruux bi duggal ci siru bi ne len ki la lek katu riba yi nak yàlla gëlëm seen xel motax bi ngeen di xex mu metti lool parce que borom xam-xam yi ngeen yaakaaloon yëpp lu ñu ñi fogon ci ñoom ñoo ñi yàlla da leen ñëw gëlëm mënuñoo gis waa ji cëy si yàlla kenn du suñu gars yi da ngeen di décortiquer mbir yi nu mu demee da ngeen koy décortiquer looloo am ci réew mi loolu falinu Pastef falinu Pastef ak seen président noonu ni ma leen waxee ni noonu la ko yàlla indee da ngeen koy wax na bu fi kenn am looy tiit dangeen koy wax da ngeen koy wax ñun ñëpp teg nañ ko suñu bët ñi doon joxani waji ñep c'est la jeunesse ne ko yow la de yow la de yaay ku sel ki yow ko ñu joxani ñi xamni ku melni yow la yow ko ñu joxani xam ku sel la ni yow yow ko ñu joxani xam ku jublani yow waye yow ko ñu joxani xam ku am diine lañ xale yi ngeen nangu ko teelu koo gis mais ana ñeneen ña ana mag ña ana ces soi-disant chroniqueurs ñoom ñëpp ñu attaqué leen ay xale yi yaradiku ngeen amu leen diine respecté wu leen kenn dafa fekk yàlla dafa ëlëm seen xel ndax riba ba la riba baaxul ger xaalisu riba baaxul képp kuy jullit ak diine boo mënta nekk boo doon su boo doon jël cox di ko añee di ko reere moo gën téeméeri junni yoon di lekk alal gu leewul du gu leewul dina feeñ fii ci sa àddina ci sa deret dina feeñ ci sa biir bàmmeel ku leen ko waxul billaahi wallaahi tallaahi alal gu reewul doo dee mukk alal gu reewul ñu koy lekk la majorité lu ci ëpp du ñu gis du ñu xam luy ñëw yàlla day muur parce que riba mooy fees dëll si c'est une donne, riba bi moy si del si une xol riba bi moy mou C'est une c'est pour parler bu baax li ma len di wax lu len bu baax li ma len di wax ak man jeunesse sénégalais bi mom la gis mom la yalla ñom la ubbi seeni bët def ci ñoom siiru boo xam ne xale yi dañuy teel a gis li mag ñi doon lekk ribaay yi duñ ko gis abadan kañ lañ koy gis mag yi dañu yeew rek ñu ne wax ji falu na <laughs> dañoo yeew rek mag yi ñu ne leen waa ji falu mais mënuñu ko woon teel a gis comme ni ko yàlla defee xale yi teel koo gis loolu mbiru yàlla la yëfu Ousmane Sonko mbiru yàlla la kenn mënu ci dara da ngi di sonal seen bopp kese mbiru yàlla la kenn mënu ci génn comme li l'ex ministre la Ablaye Sow Ablaye wax bu Kaffrine ne mbir mii moom mbir mii mbir mii ku ci xoolul mbiru ku ci gisul mbiru yàlla yow doo nit yow doo nit ab dof rek ay toog ne kii sama sëriñoo ko fal kii liyee ko fal ab dof il faut nga doon dof ku wéradi pej kooku wax jooju dangeen koy sàndi ci fële ci mbalit bi da ngeen koy sàndi ci mbalit bi Sénégal car dix-huit million de sénégalais yëpp xam nañ ku ci xàmmee lu ci ëpp ci dix-huit millions sénégalais yëpp wóor na leen géej nañu ñi xam nañu lii mbiru yàlla la du mbiru sëriñ du mbiru waliw du mbiru xalif du mbiru taaj bi mbiru yàlla la loolu dañ koy wax loolu laa indi woon na gars yi pour ngeen xamee ko noonu it ñun ñëpp ay jullit lañu ndax li gën a wóor ci ñun ñëpp tey ci àddina li ñuy liggéey nii yépp te li ñuy wax lépp ëllëg si suñuy bàmmeel ñun kott ak suñu boroom la man gëwuma loolu li may liggéey ci kaw suuf sii ci àddina bi ëllëg bu ma duggee ci bàmbel billaahi wallaahi tallaahi du ndey du baay du nijaay du kenn du sëriñ man la ak suñu borom subhaanahu wa taala xaqum xaq dëgg kese xooluma fi kanamu kenn ba may def naka su du noonu ëllëg sama bàmmeel mu métteeg man lool te ki ma doon seedal du ma la gis fenn moo tax nañuy fàttaliku dañuy limay fatiliku fàttaliku bañ man mom je suis le gardien je suis le gardien de la victoire de de la jeunesse je suis le premier gardien de cette victoire de la jeunesse kuku ko bëgg a fokkati jox ko fi mag man ngay ñëk a jàmmaaloo balaa ngay jàmmaaloo yeneen activistes yi wala yenen liveur kenn du ko fi jox ben mag momul victoire bi kenn nak ci ñoom yi la victoire xale yi la ñun ñëpp a ci tëggandoo bët li may wax ni du jamono sëñ Touba du jamono alaaji Malick du jamono Baye Laay du jamono maam li maamu Laay du jamono Baye Niass jii la suñu jamono jii la démbala woon ci Macky Sall démbala woon ah amaana bu fekkoon ci jamono ñoom sëñ Touba jamono ñoom alaaji Malick jamono ñoom Baye Laay jamono ñoom maam Ibrahima Niass bàyyi Niass xamaa amaana dañ ñu koy nettali ñu mun a gëm wala ñu bañ a gëm mais dañ ñu koy nettali mais yàlla lii ci ñun ci suñu génération gii la ko def démb la woon ku ko fi fokkati nag da ngay jàmmaaloog ñun. moo tax ma ne jeunesse bi jërëjëf ma ñëwaat ci beneen gars yi ma ñëwaat ci beneen <laughs> dama gis suñu benn frère bokk ci xeex bi xeexoon ak man ak ak ñun. mën naa leen waatal ci suñu borom li ma xeex ci xeex bi mën naa leen waatal ci suñu borom ci maandu te rek laa koy teg ëppalewuma ko lu ci lu toll ni bën bënu puso mën naa leen waatal ni billaahi wallaahi tallaahi suñu frère bi may ñëw wax nii ci li ma commencé gisagu muy wax te neexuma ma jàpp ni lu muy wax ni du dëgg d'accorduma ci muy patriote pur liggéey xeex bokk ci xeex bi yàgg ci xeex bi mais am na lu mu commencé di dox te ànduma ci te ëppalewuma ko ci lu toll ni ci bën bënu puso ci xeex bi waaye giiñ naa suñu borom it moom it xeexam bi mu ko tàmbalee ba léegi ëppalewuma ci li toll ni bën bënu puso mooy kan mooy suñu frère kilifa mooy kilifa patriote yi ngeen dagg live bi waay dagg leen live bi waay li may wax ni c'est très intéressant te damay bëgg muy egg man damay nommer les noo su ma tuddee ay tur de li may wax bu fekkee li ñu wax ànduma ci man dama leen di nome tudd ni diw li mu def ni ànduma ci te d'accord ma ci bu ma sañoon ni lii la woon te lii moo nekk ci programme bi ndéem suñu frère la ñu bokk xeex bi yëpp ëppalewuma ko ci lu toll ni bën bën puso waye waat ci suñu borom ëppalewuma ci xex mi lu toll ni ci bën bënu puso leer la wax man buma ma daf naka sudul non nanguna ku doye di la rek doomu adama la mbindeef la matuma man na juumit am patriote bu tok wax ni yow akila las li nga wax d'accord ma ci ànduma ci bu ma saño bu ma gisee man nii laa ko gisee nii laa ko gisee ñu toog waxtaan loolu mooy àddina loolu mooy patriotisme bu ma leen ci kilifa xaw ma ndax yeneen koy seetaan fan yi man ni ma gis nu may commencé di doxalee ci politique bi nii man jàpp naa du yoon bu gën jàpp jàppuma ni kilifa ni jàpp naa ni kilifa yoon bi mu jël ni di ko waxagum man ànduma ci te jàpp naa ci doonu lu gën ci jeunesse bi doonu lu gën ci jeunesse kilifa maa koy seetaan ci plateau yi jamono yi xawma day campagne pour les marabouts déglu leen ma bu baax ni ma koy dégloo dafa mel ni day campagne pour les marabouts dama ne doy na sëkk kilifa doy na sëkk li si ñu bàyyi dajoon ci doon ay taalibi di liggéeyal toolu sëriñ si li suñu maam yi dajoon di ñëw di liggéeyal kër toolu sëriñ si am ñoo xam ne dëkk yu mag gàddaay seeni dëkk gàddaay seen dëkk dem ci kër dëkku sëriñ si dëkk fa bàyyi seen gent seen dëkk yépp gent yaatuwaay Sénégal bii boo leen ko gisee li ci gën a catastrophe mooy ñu bëri dañoo gent seen village original seen gi village nataal ñi daw si ci dëkku sëriñ si xam ngeen li may wax bu baax kilifa dafa mel ni day politikal sëriñ si ci mbay mi ñaata at bu ñu juddoo ba léegi balaa ñuy judd suñu maam yaa ngi gën di dem di bayal yi ay sëriñ seeni tool ñaata baay yi suñu maam yi génn gent seen dëkk yi ñëw ci kër sëriñ si ay ponkal nga gis leen ci kër sëriñ si ñiy dem di bayalal sëriñ si dañuy dem ba seen doole jeex takk dañuy dem ba seen doole jeex takk lu ñu am sa dañ leen koy joxoñ sëriñ bee leen koy may loolu dafa nitee kilifa ndax loolu yëfu gor la ndax yooyu loolu yëfu nit la il faut arrêter sa campagne bi nga nek ni diko campagne pour l'agriculture kër sëriñ si ñi financer gouvernement bi financer kër sëriñ buñ ko financer mbay mi dina dox c'est faux c'est faux boko waxé du deug buñu ñu ba légui sénégalais yi taalibe yaa ci kër sëriñ si di leen bayal ba amuñu autosuffisance amuñu autosuffisance kilifa il faut bien réfléchir pour sauver cette jeunesse. Il faut bien réfléchir et beaucoup réfléchir pour sauver cette jeunesse. Adada, l'ignine Adada, doit une sec. Ni jël investi, doko ko jeunesse bi dem tali, ñi don ay bi di dem di bay ci tolu sëriñ si na doy sëkk man dina la jox dina la jox nakal li li gën ci jeunesse bi waxuma ne li gën ci sëriñ si de li gën ci xale yi xale yi ñoo ëpp jeunesse bi réew boo xam ne soixante dix soixante dix pour cent tous yëpp ay jeunes la nga bëgg ñi jël financement wu bay bi jox ko ay sëriñ xale yi dem foofu ñi leen di téye di leen di noggatu foofu xale yi di béyal sëriñ si sëriñ si di jur di am seen doom sëriñ soo su seen doom yi yëlif xale yi jeunesse bi kenn du am dara yéen laay waxal de kilifa campagne bu mu commencé nii campagne bi bu ko dogul du ma ci dog bu ko arrêté wul du ko arrêté bu arrêté wul bëgg a tympaniser ñi bay bi nañ ko basé ci nañ ko basé ci kër diine kër kilifa diine ne kilifa baayam bi mu juddoo ba léegi baayam baayam bi jur maamam bi jur baayam ba léegi sénégalais yaa ngi bàyyal kër sëriñ si bon qui qui bonne amélioration là la réew mi am du tey kilifa tay la soga wax gouvernement gouvernement bi ñaan tracteur yi ngay dégg yëpp bay bi jiw bi yëpp sëriñ ci du ci ñak lu ñi jël jeunesse bu tollu non 70% 70% pour des sénégalais sont des jeunes ñi bugg a concentré ñak am xel xel wala nga iñaane jeunesse bi dëgg dëgg dëgg mooy nga nangu ñu jël mbay bi ñu concentré li ci ëpp ci kër sëriñ si loolu nga iñaane jeunesse bi nga iñaane xale yi iñ wala nga ñàkk xel dëgg dëgg yaay xalaatee noonu am na li ko gën fopp téeméeri junni yoon te gën koo jekk gën koo sell gën koo rafet man je m'attendais kilifa nga toog nga ne nañu ubbi ay atelier walla des écoles de formation des centres de formation man lool laa doon xaar yow ci yow ci kilifa mais topp plateau te da ngeen di wax da di wax ba teppeeku ngeen yàpp ni yéen a ngi ci dëgg te nekku leen ci dëgg dama ne yéen ni di ma déglu maa ngi leen di ñaan dagg leen vidéo yi mu egg ci kilifa dagg ma vidéo yi limay wax ni ci kilifa vidéos. leen di ñaan yeen wi di may déglu mu egg ci kilifa mané duñ ko nangu sénégalais duñ ko nangu jeunesse bi duñ ko nangu man je m'attendais kilifa nee na wër bi dem dans les grandes universités du monde dem na ay xawma wuya yo je ne sais pas fan ci Amérique dem sur les grandes universités muy def fa ay colloque moom yaanaamaar ak suñu frère bu baax bi ndeysaan caat big up caat big pour toi nga ne dem nga ci université yëpp mais nga jóge fa ñëw toog mais doo fi indi mukk luy avancer loo réew li ngay wax nii moom dangay dagg dangay dagg dangay jël xale yi jeunesse bi def leen jaam doon jaam ak taalibe bokkul il faut savoir dire

mi dal nañu xol serigne ci ñu lan xawma naka le marabout l'a bi di toujours Abdou Karim je ne sais pas là vous m'excusez <laughs> ma mère il est là il est là mu ngi di politique di politique ci Abdou Seigne Abdou Karim, amna amna dakantel buñ koy dakantel quoi mais man ce dakantel la je ne suis pas dans ça quoi vraiment je ne suis pas dans ça je ne suis pas dans ça Seigne Abdou Karim, yow bo xolé que cité yu ok ok c'est bien Seigne Abdou Karim toli yi mu tabax fa tabax fa taalibe yi dëkk fa mais lolu du lolu rafetna ok man nanguna naa rafet mais du lu gën man dama dama la liberté des humains man dama la liberté des humains Pour nous dépendre ci liberté, Je man dama gëm ni ki am liberté nga mënal sa pas. tok bu bi wala magal, nga fekk ci sëriñ bi mais du ma nekk vous ma parce que la may tabaxal ñoo may jabar yow dafa melni un esclave do talibé esclave nga dama né cet gouvernement là le gouvernement là xaaruñu ko ñung koy xoolal on a on a l'œil à ce gouvernement ñung koy xol kilifa sa façon yi ñung ngi leen di xol bu baax xam nga ñun lan lañu bëgg dama né nañu tabax ay centre de formation nous avons des centre de formation qui région yi région bu wala département bu mun nga am deux centres ou trois centres de formation formation de quoi de tous les métiers de tous les métiers je dis région bu département bu avons na presque quatre centres de formation mu dem be wacc sa ci commune xalé yi di dem di formation jangou ju kawe jooju nako xale arrêté di dem di jàng formation mo xam agriculture lañuy jàngi mo xam élevage lañuy jàngi mo xam soudeur lañuy jàngi mo xam maçon lañuy jàngi mo xam pêche lañuy jàngi tulipe faites chier faites chier nañu tabax ay centre de formation ñu duggal fa xale xale dem jàng fa am ces métiers là bu fekkee l'agriculture bu fekkee l'agriculture suufu Sénégal yaatu na xale yi dem nañ ba jàngal nañ leen en formé nañ leen ci la ci agriculture ba xale yi mun a bay xam luy bay xamu njëriñu bay ñi dem daggal leen ndey seeni parcelle fait che ñi dem daggal xale yi ay parcelle ay tool xale yi di fa bay di teddal seen bopp bu ñu munee jënd seeni oto bopp jënd ko te duñ ci xam benn ndigalu benn sëriñ buñ ci munee tabax étage nañ ca tabax buñ ci munee paas dem màkk paas buñ ci buggee paas dem vacances New York nañu dem wala Chicago wu wala Taïwan bu màggal jotee gàmmu jot xale yi bu ñu bayee am nañu yàlla xéwal na leen ci seeni tool ci l'agriculture bi bu màggal jotee ñu ne ah sëñ Touba woote de mhm. bu màggal jotee ñu ne ah sëñ Touba woote de xale yi daal di teg li ñu jot am ñu yóbbu ñu yóbbu adiya dem joxi seeni sëriñ dellu si waat si seen tool yi dëkk nekk seen liberté waaye bu ñu ne gàmmu woo bu ñu ne gàmmu jot na ñu ne ah alaaji Maalika woote de ñu ne alaaji Maalika woote de <laughs> xale yi xale yi bàyyi jël seen tool yi tëj ba bés ba jël lu ñu dajale bu ñu demee Tiwaawoon joxe fa seeni adiya waaye bu ñu ne ah, laay laay woote de ñu ne maam li maamu laay woote de ñu ne maam li maamu laay woote de xale yi bàyyi seen tool yi bés ba dem ziyaare ji maam li maamu joxe fa seen adiya dellu si ci seen tool sans autant que ñu nekk ci benn ginnaaw sëriñ addina bi yëpp yow nga ne kilifa yow dox nga addina bi yow kilifa yow nga ne wër nga àddina bi yow kilifa nga ne dem nga ci université yi gën prestigé dans le monde nga def fa ay conférence di waxtaan avec des grands professeurs yow tu ne même pas capable yow kilifa tu ne même pas capable pour xalaat ni l'agriculture war nañoo def ay centre de formation ay centre de formation pour dugal ci xale yi jàngal leen jàngal leen ba xale yi am seeni diplôme ñu won leen lan mooy bay xale yi ñi dem daggal leen ay parcelle xale yi di bayal seen bopp yow am yow miy wër àddina bi yëpp yow miy wër université yi gën a prestigieux dans le monde yow tu n'es même pas capable d'avoir cette idée nga naan noonoon nañu jël kii bi jox ko sëriñ si nañ jàppale sëriñ si si bay bëgg tënk xale yi daf leen kay esclave loolu nañu defoon suñuy baay yi suñuy maam yi boobu ba léegi dara sottiwul jeunesse bu bari bii yëpp nga bëgg leen tënk ci ay sëriñ sëriñ yi ñooy moom seen tool yi xale yi duñu am benn tool sëriñ yi lañuy ñuy daggal suuf si ne comme ay taalibe topp nañ ay xale topp nañ loolu mooy gàtt xel dëgg ay junni junni taalibe topp benn sëriñ tool yi buñ ko daggee yëpp sëriñ bee koy moom xale yi buñ demee ba baye bay nit day màgget nit kàttan gi day wàññeeku nit day am njaboot xale yooyu bu ñu demee beex nga xam ne ay doxot kese leen dese bu ñu demee ba màgget nga xam ne ngelaw doxot kese mooy génn ci ñoom xale yi boobaa dootuñu am dara amuñu tool amuñu tool am ñu lu seen doom yi di donn lu dul donn boo xam seen seen doole yi yëpp seen kàttan yëpp dox nañ ko sëriñ si jox nañ ko sëriñ si ay doxot kese leen des seen doom yi nag amuñu seen bàyyi bàyyiwuñu leen fi dara lu ñuy héri héritage nañ dem ci toolu sëriñ si rek continuer bay bi foofu loolu nit dina ko xalaatee noonu kilifa loolu nit dina ko xalaati non loolu da ngay xalaat nit nit moy doon xale nit moy bu xalé day dem be doon muskalaf bu doone muskalaf day doon be doon kilifa mat bu doone kilifa day dem be doon màgget nit day jeexal man dama ne xale nañ leen daggal kenn ku ne seeni seeni seeni terrain comment je peux dire nan la ko wax seeni parcelle xale bu ñu demee ba ñu former leen nañ leen daggal seeni parcelles parcelles yi ñu dot ñu jox leen ko moo xam bàyyi lañ koy jox woo xam ñiy fay ndànk-ndànk bu ñu bayee bu ñu amee di fay terrain bi di fay tool bi nga xam ne ëllëg seeni moomeelu bopp lañuy doon seen du ñu dépend du ñu ne du ne tool bi toolu sëriñ bi la du ñu ne tool bi toolu doomu sëriñ bi la du ñu ne tool bi toomu toolu diw la ñuy wax xale bi bu deewee njabootam yi donn ko ca xawma ndax yeen ak may deg gaay da gaay dañuy dodof lu ñu ngi teel jog di political ci mbarabu la xawma ndax yeen ak may deg nak parti sénégalais xawma ndax yeen ak may deg bo le ma déggé def wa na message yi jolli way ñi ñi fi dañuy dodof lu kese mu ne quand on donne ces marabouts mun nañoo am autosuffisance alimentaire ma ko kii moo mun a duur kii moo mun duur buñ jëlee agriculture bi jox ko sëriñ si épaulé sëriñ si Sénégal mun naa am su eh, comment dire suffisance alimentaire mun nañ koo am ma ne ko da ngay duur ma ne ko da ngay duur yan sëriñ lañ koy jox ma jox leen exemple Gai mo ngi wax ma wax bu ni Sénégal visite dañ ñu netali ko mais histoire wax nañu ko sommes venus Sénégal C'est ici Sénégal. visite ko le tour mais da comme Côte d'Ivoire comme est intelligent

Wow, dama d'où du yéen sénégalais Yen a la Casamance moy le grenier du Sénégal le grenier du Sénégal Hana da ngeen ko bëgg yamalé ci seeni gat D'où du juddo juddoo ba léegi musuma dégg ñu ne c'est le grenier du Sénégal musuma dégg ñu ne Ndar wala Louga c'est le grenier du Sénégal musuma ko dégg waaye musuma dégg nag ñu naan ma Mbàkke Bawol c'est le grenier du Sénégal bi ma juddoo be léegi bu ma juddoo ba léegi musuma koo dégg yow mii di ma seetaan bi nga juddoo ba léegi musoo koo dégg waaw ma dellu si laat leen fàttaliku leen da dangay indi dodoflu rek kilifa day dodoflu rek xaaral ma ñëwaat rek man damay indi lu palpable di ko tegal te moom du ma indi lenn lu palpable lu tax ñiy jël agriculture bëgg épauler ces marabouts jël jeunesse bi parce que amna ñoy talibé di dem di bayal marabout duma ci indi lén lu concret lu gën ci mbir mi duma ko indi mais man li ma lén di wax li gën la dama lén ko te mu dama ne sénégalais yéen a may dégg Casamance ak lo fa mën ta wax lo mën ta wax ci Casamance Casamance mus dama né ndoxu ndoxu ki comment dire ça jàppale leen ma jàppale leen ma dëkk bi waay yéen a ko gën a xam li may wax nii Lac de ndoxu Lac de gii gi ngeen di naan nii ñii ñëw ñii fay ay robine Ndakaaru ba bëgg a dee ndoxu Lac bu ñuy naan nii gars yi xanaa xamu leen Casamance ndox Lac de bi eggu fa te soxlawuñu ko ndox Lac de Guiers gii gi ngeen di dégg Sénégal yépp nañ tool dama ne ndox ndoxu Lac de Guiers bii tey Sénégal a ngi nële ndoxu xorom lu ci ëpp ci région yi ndoxu xorom lañuy naan lu ëpp ci Sénégal ndoxu xorom bi lañuy naan moo tax ñu ngi bëgg a dee ko ku ci ñakk yaram bi xorom kese ndoxu Lac de Guiers bii des millions, millions de, je ne sais pas, de mètres cubes. Nous, nous, tous, bëri nous soxlawul ndoxu de guerre. bi te du fa dem Manele, li Sénégal li petit Sénégal nous xorom si la naan mu président yi di nañu fexe ben négocier ak mauritan ak ñun luñu am ci ci Lac de Guiers ñu xëcc ko defal leen ay tuyaux ñi naan ndox bu sel bi nak lolu tammi ay financement la lolu ay financement la xaalisu impôt sénégalais sénégalais foo munta le sénégalais qui est qui est au Fongolimbi là-bas xaalisam a ngi ci. moom lañ leen di xëccal pour ngeen am ndox mu neex ngeen naan ko or que ndox mu neex boobu ndoxu Lac de boobu yeneen région yi ci Sénégal soxlawuñu ko xaraamal nañ ko ndoxu Lac de bi du dem du fa egg mukk ndax soxlawuñu ko am nañu ndox bu ko gën a sell bu ko gën neex boo ñëwee oon boo ñëwee au sud du au sud du Sénégal boo demee Casamance ndox bu gën a ne bu da naan ndox mel ni yow ndox mi neexaay bi loolu nag loolu yàllaa ko def na ci suuf yi nag ni ngeen nangoo département bu ne wala fu ne yàlla def na fi mais am na fu yàlla def lenn loo xam ne dama ne suufu Casamance suufu Casamance kuñ fa suul sa maam bu suuf si ragalul woon yàlla te rusul woon yàlla kuñ fa suul sa maam mu sax maa leen ko wax ñuy dodoflu rek dañuy dodoflu rek di gën a rëy làmmiñ di daw ci tele yi rek sistème bi lañuy ñuy changé du ñu nangu ay doomu xaraam yu tollook ñun bugg a bugg a pilier ñi ñi pour jox ñenn ñi ñu ne yell déedéet duñ ko nangu bu njëkk ba sa daan na jàll nga xam ne benn tele la woon benn rajo la woon kenn du dégg ko kenn mais fii ku fi njëkkante ci tele yi ci plateau yi ñi ñey téye sa xuur yi téye sa xuur yi ne la yemal fii ku fi dodof lu bëgg a daw di political yeneen région di critique am na ñenn ñoo xam ne amaana ñoom yàlla nattuwu leen ci wax mënuñoo dem ci toog ci plateau yi di fen yi kese di fen yi kese amna yenn xet yo xamni fi bi aduna àdduna di tukki ci rewmi do len gis ni tok ci plateau télé di wër di di langal seen xuur yi di feni kese fen nañ fi depuis 1900 neuf jusqu'à nos jours là dara changé histoire du Sénégal lepp ay katch kessel may gërëm seigne Baara ndjay may gërëm di sante bu baax suñu frère patriote bob seigne Baara ndjay yalla na fi yag lool téwél Yalla yalla yàlla yokk yalla yalla na yàlla na ko yàlla yokk wér ndax seigne Mbàkke ni Mbàkke sëñ Baara mu ngi fiy génnee loo xam ne ñi après yow bo togué yow kese si sa coin da ngay né oh Sénégal lu ko lepp lépp ngi ci Sëriñ Mbàkke Njaay ko doon déglu jeudi bële les diplômes de ENAM la ENAM ENAM ENAM da ngay tok ñi génne ay paa yu saram seen day jang saram ndayam xamuñu ko ay quota la leen di jox ci biir PS c'est des cadres ñi ñoo génn ci école yi magi té motax la preuve ané que saram nday mënuñu ko créer ci réew may gërëm kéro bi ma déggee bi ma déggee Cheikh Bara Ndiaye génnee man ñima yaakaaloon ci des diplomates am borom xam bo gise doomu kharami yi bag sa ñii bag kese lañ am gën a rëy yaatu gat gën a rëy ay bag rek lañu am ay bag soriwuñu ci jàng soriwuñu saram dayam ci jàng ñii ñi jël leen copte leen dugal leen ñu ne leen ni ñooy suñu enam suñu enaak yi <laughs> ci réew mi muy réew ka cappam dëgg réew mi il était un un pays de kacapan un pays de kacapan mooy yii ñi xañoon ñi xañoon nag ndeysaan ñi xañoon région yi ñi xañoon doomu région yoo xam ne bu ñu doon jàng ci lampe tempête la ñuy jàng lampe wala ñi taal sondel mooy ñi dëkk ci kaw ji moo xam ci kaw kaw kaw kaw Saint-Louis nga dëkk moo xam ci kaw kaw kaw biir Fuuta nga dëkk moo xam ci kaw kaw kaw biir tàmba moo xam ci

nga génn fa ñu jàppale benn génn ñu jox la ñu ne énarque nga mooy ñee dem ci yàlla ñoom tanoor ñee c'est des énarques ces énarques là la ban idée lañu indi lan lañu créé ci réew mi ba mu doxal ci réew mi mooy won diplôme yi yëpp zéro zéro nga gis gis naa fi ay homme politique yoo xam man fi ma leen tegoon ci diplôme man keroog bi koy sëñ baara di wax man damaa mujjee ni di sam bopp dama ne ay waay yàllaa alak bii réew waay ñooñu ñi ñuy gëm leen yaakaar ni si ay borom diplôme yi mag lañu ay borom xam-xam jàng bi am xam-xam yàgg ndekete gars yi fuuree daal di xëy kenn ñoom ñëpp seen ndey maa tane sa seeni ndey tane seeni baay ndax man dañ maa nax wala ñu jéem maa kale foo xam ne comme man ci biir nekkuma Ndakaaru bokkuma Ndakaaru samay maamaat yi maamaat kenn juddoowul Ndakaaru yow mii di ma seetaan sa maamaat yi maamaat sa baay sa maamaat yi maamaat kenn juddoowul Ndakaaru ñun dinañu jàng ci sondeel yi dinañ jàng ci lampe tempête yi munu jéem a bousculer mbir mi gars yi mbir mi dafa am fu mu takk parce que nekkoo biir Dakar bokkoo ci Ndakaaru les Abdoulaye Makhtar Diop ñooñu la ñuy tànn parce que ay ci fan la ñuy jóge ci fan moo tax réew mi dem du bor ay boroom xam-xam moo tax may sant sëñ Mbàkke ah, sëñ Baara Ndiaye ci gëstu bu mu gëstu bi génnee sëñ Ba sëñ Baara Ndiaye li mu génnee dafa am solo am important xool leen ñi mu lim ay ba ay bachelier rek lañu ñu am ñii sa yàgguñu sa ci université daw cartouche daw mais boo leen gisee ñooy sol ci vest yi ñooy ñëw toog ci plateau télé di ubbi seen tuun yi seen gàtt yi di génn di wax ba wër Sénégal yi dañuy wax ba wër Sénégal yi cottu tey bii wéew c'est un pays de làmmiñ de làmmiñ ku la gën a gën rëy làmmiñ gën laa ñeme yàlla nga dem solu veste rek ñëw nag bokkoon ci benn parti mooy parti ancien solal sa veste bu kii rek man énarque laa génn kenn laa dégg ci énarque yi kenn laa dégg ci énarque yi moo bousculer mbir mi ci seen jamono xeex xeex xeex mooy le gars notre notre notre papa notre papa Habib bu dëkk Jolof xaru mbir yi dajanteeg yoon di dajje nday mbir yi ba moom mu mun a perse ci xam-xamam ci jàngam ci jàngam ba dugub biir ENAC ba dugg biir ENAM Habib Sy si seen génération yooyu ñu ne Habib Sy moo gën moo dëkk kaw ga moo jóge fële di jibokaa lu tax mu am jibokaa ban xam-xam la am mooy PS bi mu nekkoon nekkoon secrétaire u Senghor bokkoon ci Senghor ñoom ñoom ñes paa yi paa yëpp lan ban xam-xam la am ban xam-xam la am

ndeyam ndeyam def na fi lu yées mais moo ñëw rek fekk mbir mi rek ndem génnee ko biir pare loolu moo may tey ñoom président Ousmane Sonko mii tey moo may tey suñu président bi bu sell bi Bassirou Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Ñaaxaar fay tey mu mun a accéder ba dugub biir ba dugub biir enam moo may tey ñoom président Ousmane Sonko ñu egg biir biir biir enam loolu nañ ko santee nag wax dëgg yàlla nañ ko santee Ablaye Wade bi ko génnoo bu ko fa Ablaye Wade bàyyi kooku masiba la kooku est-ce que ñoom président Ousmane Sonko dinañ dinañu jàng ba yëy këyit bu nu ñëw duñ leen dugal biir enam concours bu ñu ko defoon sax dañ leen di jël teg leen fële ci ginnaaw bu ñu jëloon sax ñi falsifié ndax Sénégal loolu rek paa ñoom genre ñoom Iba Der Thiam yooyu paa yi fi jiitu yooyu yëpp paa yi ñoo yàq Sénégal ñu leen di seedal tey yu baax waaye ku fi defoon réew mi lu jaadool ba jël fi ak ak ak ay nit torox jël fi coono nit euh, salfaañi ko yaa xam dee nga yaa xam deewoo billaahi maa ngi lay ñaanal jëf ju bon ji nga def fii jëpp ci kaw suuf yàlla na la fekk sa biir bàmmeel yàlla na leen yàlla fekkal loolu seen biir bàmmeel ndax biñ koy def neex na ci ñoom ñu ngi gundar ndaatu ñu ngi am àddina ñoo gën a muus nit ñi ñoo gën a jàng nit ñi fekk lépp dara du ci dëgg tappale ak fen ku ko ci musoonoo daf ci biir réew mi ba xañ ci ay doomu Sénégal yoo xam ne seeni baay ay béykat lañu sonn di jël ci gerte gi di jël ci dugub bi di jaayal seen doom seen doom yi jàng ñu ñi élèves yi pertinent ñi xañ leen parce que ñu ci benn système ñooñu ñëpp bu dee ñi ci dee ñi ci dee jëf ju ñu defoon yépp yal na leen fekk seen biir yi bàmmeel yal na leen fekk seen biir bàmmeel ñi leeyoo ko ak yàlla réew mi ay doomu xaraam kese fi loolu nag laa indi woon nag yéen sénégalais yi ñu waxtaan ci dañuy fàttaliku rek mbir yi ndax réew boo xam réew mi moom dañ koy defar parce que bi muy ñëwee changement du système la ñu wax système dañ koy dëjjati bu ñu gisee luy nuru luy bokk bokk ndax système bi seeni sëti sëtaat am na ñoo xam ne compal nañ leen ci riba bi riba baa ngi seeni deret dinañu bañ sa mais riba bi dafa am doole dafa am doole riba baaxul am na ñoo xam ne ndegam compal nañ leen ca xaw nañ cee comp tuuti dugg na seeni deret te ay patriote lañ de affaire bi day xeex ñoom dañuy xëccoog mbir mi affaire bi daf leen di xëcc bëgg leen fàttaliku système bi ñiy xëcc di dem loolu nag ñun ñooy veillé ba buñ ñu ci dugal moo tax ma ne agriculture bi l' agriculture bu suñu frère bu suñu frère kilifa di campagnal pour les marabouts ma ne c'est faux du fi am wax naa leen ladde guerre gii ndoxu ladde guerre gii boo leen laajtee Casamance moom ndoxu la de gi soxlawuñu fa ndax du fa egg ñu ne nga ne ma lu tax yow mii di ma laaj lu tax ma ne la ndax Casamance gële seen suuf yàlla da koo barkeel suuf soo xam ne ku ci suuloon sa maam bu suuf si rusul woon yàlla bu suuf si ragalul woon yàlla kuñ ci suul sa maam sa maam sax suuf see barke loo fa jiwu mu sax te li ngay def ci Casamance ci agriculture

souci si léeg-léeg suuf si suuf rek ngelaw bi buñu ñuy day souci suuf di ñaaw nga gis kekk bi ne kekk lan lañ fay def faw ñu xëcc financer xëcc lac de guerre bi ñëpp sénégalais yëpp seen impôt bi bok ci ñu xëcc lac de guerre bi pour jox ko benn zone région ok baax mais loolu tamit bala ñu koy def nañu dem xool foo xam ne loo fay financer du bëri pour nga am pour nga am autosuffisance alimentaire nan la nit di mënee gis loolu ba pare nga gëm bugg ñoo gëm loo leneen wax leen ma ko waay nan la nit di gis loolu walla yéen tubaab yi de bu dee nasaraan yi la duñ ko nangu dama ne bu doon nasaraan yi la ñoom duñu xalaatee loolu ok man dàqoon na le noor du senegal ñu xool te dinaa leen jox benn exemple rëy gat kese lañ fi nekkee ceebu waalo bële kilifa kilifa vous n'avez rien compris absolument rien compris billahi vous n'avez rien compris dama ne yéen laa waxal sénégalais ceebu waalo bi waalo amna ay tol. ceeb <laughs> mais ils n'ont rien compris boo leen gisee ceebu waalo bi mu naqaree lekk est-ce que xam ngeen lan la ndax man ceeb boobu bi may <laughs> bi may nekk armée ceeb boobu lañ ñu daan indil tànn bi <laughs> ma ciy saluer sama ma ciy saluer ma ciy saluer sama classe Joachim Djiba moo continue cuisiner. cuisinier ma classe là, ñoo bokk ñoo bokk Joachim Diva. Kasumay d'ailleurs d'ailleurs. Joachim Joachim Diva. Jiba ak maa ko lëjaloon nag dama soboon nag Ça ma la nag waaye Ouais, bi bu ñu est jagaan Ça ma classe là. Nous sommes <laughs> <laughs> <laughs> ah, sama ancien ma classe Ça ma classe de guerre là. Voilà, ça ma la Joachim ana ñoom Guèye Para waxuma leen Guèye Para bii de eh, <laughs> waxuma leen Guèye Para bi ngeen gis ci télé bi de patriote boobu waxuma leen kooku de non non amaan na beneen Guèye Para suñu classe la ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare maa ngi ziare ñépp xam ngeen lu tax ceebu ceebu kii bi naqari ceebu waalo bi est-ce que xam ngeen li tax. ceebu waalo bi dama kaa lekk-lekk bi ma demee ba Joachim Joachim Djiba nekkoon suñu cuisinier man ci laa xaraamee <laughs> nekk armée de ci la ma Joachim Djiba génnee carrément ci ceebu ci ceebu jagaawu waalo bi <laughs> xam nga moo yor cuisinier bi magasin bi yëpp mooy togg ne ndeysaan Djiba Djiba yàlla natt kook man nag mu bëggal ma boppam xam nga cuisinier rek dafa mel ni yaay ci waañ xam ngeen yaay ci waañ day xool doom ju ko doom ju mu gën ju ko takk ju mu gën a préféré léeg muy sàcc yu neex yi di ko ko jox Joachim Djiba daa <laughs> Joachim Djiba loolu la kon yàlla natt woon ci man te no bu lee bu ma waxee na nga dégg ay doomu xaraam génn fii ne ma ab joolaa la te joolaa yi nekkoon ci suñu classe ci suñu camp bi ñu ñoo ma ëpp fuuf yaa di yaa des centaines de joolaa la ba Joachim Joolaa Joachim Djiba man la ci tànn nag ma doon seytaane bu toggee lu neex rek man du ma <laughs> ndax may woo sama classe la ku ma bëgg la ndeysaan maa ngi koy jacques chrétien la moo tax man ak chrétien yi moom catholique yi duma tàggook tàggoog ñoom de ñu kenn gënu leen ci réew mi chrétien ah waay làmmiñ ñuy rëy rek làmmiñ ñuy rëy rek damay faral di wax sàcc yi ngeen di dégg nii yëpp yu ñuy dàq yëpp <laughs> kenn tudd ci boo ci bien ben Joseph saki qui ngeen di dégg nii pour dénoncer saki saki pour ngeen dégg ci Joseph di walla Safa ak Marwa dina am ben Joseph ben Paul mais li ci ëpp yëpp mohammed Cheikh Assane Cheikh Assane Elage Hadj sàcc yëpp la moo tax catholique catholique yi Sénégal yi man respect bi ma am ci catholique yi billahi respect bi ma am ci catholique yi yàlla mën na ma ko seede bariwul ci li ma ko amee ci jullit yi chrétien yi ah waaye chrétien yi waaye kenn du ñoom te réewuñu làmmiñ bugguñu ay wone wee loolu bugguñu def diine caaye yi diine diine fëgg jaay yi diine fëgg jaay yi <laughs> se <laughs> fait valoir ñun ñoo defee man moom laa ne lislaamu caaya ah lislaamu fëgg a jaay lislaamu bu ko say demal réew xoolal chrétien dama ne boo leen gisee ceebu waalo bi nakari ñun ñëpp sénégalais am na ñoo xam ne ñoom dañ ciy coore mais lekkaguñu ko man ceebu waalo bi dama ko xoolal <laughs> jàpp na jàpp naa yaakaar na appendicite bi ma opéré ba ñëw bi ma ñëwee Italie dama ñëw Italie rek commencé lekk ceeb bu baax bi lekk bu baax it appendicite kii bi génn appendicite bi ci laa <laughs> ci laa dem Italie fii fii lañ ma opéré appendicite bi man bu ma nekk dia ida dem cee mbëkk ceebu waalo bii bi ngeen di coow làmmiñ yi gat yi rëy te duñ ci lekk ñi di tok ci plateau di télé yépp di wax la majeure part dañuy tok ay fenn yi kat xam nga Sénégal fenn ak sacc mo fu ëpp Sénégal fenn ak sacc mo fu ëpp mo ëpp ci xéy ci mindé fi fenn ak sacc lu yalla gëna xaramal xaraamal loolu moo ëpp ci Sénégal fenn ak sacc dañuy tok ci plateau télé di pousse ñi ñi nañ jënd ciébu ciébu ki bi ciébu réew mi ciébu réew mi te ñoom ñi leen koy wax kenn kenn du ko ci jën xam nañ ko man dem ci mëg xam naa bi ma fa jógee ba ñëw fii Italie xam naa appendicite affaire bi génn médecin yi xool ko ñu ne ma appendicite bi appendicite gars yi opéré ma daj xeer yiñ fa fekk <laughs> ci waalo bi ngeen ne lan dama ne xam ngeen li lan moo différencier dinaa leen ko wax dinaa leen wax ñaa leen jox ñetti ceeb ma commencé ko ceebu waalo bi zone waalo bi ceeb bi tool yi ok nga jël ceebu Casamance bi nga jël ceebu Pakistan bi ñuy lekk nii walla Pakistan walla Chine seen ceeb yooyu dafa am différence ceebu waalo ba tey ceebu waalo fii dama koy wax sénégalais yi sama frère patriote yi bi ñuy togg dama leen ko dama leen ne ceebu waalo bu ko jigéen di togg bu ko jigéen di togg ak ceebu Casamance jigéen di ko togg rek da ngay ñankataan bu ko commencé di def da ngay odeur bi odeur bi xoolal parfumé gis nga parfumé ceebu Casamance ñun dañuy toog suñu yaay yi commencé di yàq di yàq suñu yaay yi xam nga ñun waa ñi ci ginnaaw kër yi lañ ne ëtt bi fa la ñuy ñibbi maire yi bu ñu commencé di yàq rek parfumé ceeb bi da koy dégg parfumé xet bu neex la lay jox le riz de waalo la jox parfumé Bobu. weddi len ma ku ko lekk rek gennal weddi ma di nga ko di togg dou la jox parfumé bi kébu Pakistan kébu Chine bi bokoy togg ñankata rek nga nek feulé ñankata ñi yëngal ko tek ko ñor na ñukoy ëbliti nga dégg parfumé bi xet bi mais kébu walo bi dou la ko jox un moy da ngeen di constater da ngeen di constater ba lo gis yalla dafa am fim ko wàccee xam ngeen lan mo waral lo dem len Chine ba Indo Indonésie dem len Chine ñoo ñëpp di bay ceeb leur façon de cultiver le riz bokul ba léegi ak li ko di suufu walo di baye bokul fële ay farola la len chinois yi dem len ba Pakistan Pakistan côté Pakistan arabe yooyu nga dem Chine ba ay taywan ceebu Taïwan yooyu yëpp yi ngeen di gis naka lañ koy béyee ndax dañ koy béyee niñ koy béyee ak niñ koy béyee ci waalo sa bokkul xool leen li ma leen di wax bokkul sa niñ koy béyee ni ñuy béyee ceeb ci Chine ak ci Pakistan ak ci li wër Chine lépp fi ceeb bi di jóge par rapport ak li ko waalo di béyee suufu waalo bi niñ koy béyee bokkul vous donner exemple la façon dont la Chine Pakistan ni Baye bayee ceeb ni ñu la koy Casamance di baye. xam la lan moo différence avec la Casamance parce que la Casamance ceeb ki faro lañ koy Les faro ceeb bo bëggee am ceeb bu faro lañ koy Baye, faro mais ko ay ala doo gis ñi jël ceeb bi dem bay ko ci àll doo ko gis mukk ñi jël ceeb bi dem ci àll bi bay fa ceeb te àll yaa ngi fa te taw bi day taw ceeb bi ci faroy la boo demee Chine de tàppe leen ci Chine ngeen gis ngeen tàppe YouTube ngeen xool naka la Chine Pakistan di bayee ceeb duñ ko bayee mukk ci ay àll ni àll yi wow foofu lu fay judd bu juddee bu ceeb bi génnee rek dootul melati ak ceebu faro man mii di wax ak yéen damaa bay faro <laughs> damaa bay faro faro di dem di bayal samay tant samay yaay bu kii bi damay dugg ndox mi ba ci óom sama óom bu ma duggee ci ak saretu nag bi sama rakk téyel ma man ma téye donkotom bi machine bi xoolal ndox mi ba samay óom lay nekk ndox mi sa tànk bu duggee suuf si suuf si ngay saxal ceeb suuf si tey boo demee waalo suufu waalo bu ma doon bay ceeb xam nga fan lay egg <laughs> si sama tànk bi fii daal lay di yem sa du fa egg suuf si du fa egg ndox ma tamit du fa egg mais boo ñëwee ci faro yi boo ne pëcc ci biir faro yi xoola ban bi suuf si dafa ñuul kukk boo sampee sa tànk ni pour nga génnee ko nii sa problème day dëgër ndax ban bi ceeb bi noonu lañ koy bay dafa am ceeb bi dafa am fu mu accepté loo xam ceeb boobu boo leen koy maa leen di ñaan yéen patriotes yi may ñaan bépp patriote bu may déglu xam nga waxtaan nii neex na on est des frères Pastef boole nañu ñun ñépp tey senegal doomu sénégalais ñi doon benn bokk ndey bokk baay yàlla def ko ci jëmm président Ousmane Sonko man loolu laa gëm ma di leen di ñaan patriote yi yëpp fu vidéo bi mënta egg yëpp ci Sénégal su patriote ne maa ngi lay ñaan nga am courage jàppal ni fi nga dëkk fépp foo mënta dëkk ci Sénégal te dëkkoo Casamance jàppal ni doomu Casamance nga ak foo mënta dëkk ci région wu Sénégal maa ngi lay ne jàppal sa bopp ni yow doomu Casamance nga comme man ni ma jàppee sam bopp ni doomu jolof la doomu fuuta la doomu bawol la man loolu laa gëm ngeen fexe yéen mi nga xam ne musu génn ci géographie Sénégal musu leen génn fenn maa ngi leen di ñaan patriote yi wax tëgg yàll dem leen Casamance ngeen visité Casamance ngeen xam Casamance bu leen dem rek ci ay ay été dem leen fa buy taw buy buy taw ngeen découvrir loolu dafa bax ci nit man ni ma xamé le nord du Sénégal man amul ben sénégalais bu may wéranté ci le nord du Sénégal amul parce que yalla natuna na ma xamna lu bëri bëri te teg sama tànk fu bëri bëri ci le nord du Sénégal li ma len di wax ni du question sabab fee yi am la man damaa damaa yaroo Casamance liggéey Casamance bay fa màgg gis naa ceebu ceebu waalo bi ma lekk ci ay ati at ca teebu Casamance daanaka moom moom moom laa màggi jël leen ceeb njëm leen Casamance nawet jot bu ñuy commencé di góob demal nawet bu jotee nga gis ñu ñuy bayee nga bàyyi ba ceeb bi génn nga ñëw ñu defal la ay takk ceeb nga indi ko sa kër ñu togg dëbbal la ko yëpp indi ko nga jox sa jabar mu toggal la nga jël ceebu waalo bi teg na ne sa jabar toggal la ceeb bii ba pare yow da ngay ne ceeb bi te ñun ceeb boobu tànn buy bi ngay di gis nii comme ceebu waalo amul fale amul de ñun maire yi ñëw ceeb boo gisee ni ñuy liggéey ceeb bi boo koy teg ceeb bi direct day weex tam te ceebu waalo bi dafa jaune ceebu Casamance bële dafa weex tal dafa weex buñ ko góobee ba ñëw jigéen ni debbu ko dafa weex tal ngeen dem essayé ko seen jabar yi togg na leen dafa commencé togg ñank rek ngeen dégg odeur bi da ngay ne ciébu boutique yi ngay jënd ci ki la odeur bi nu muy nexé kon nañu bayyi caaxaan di génn di di ñëkënte ñi ñi di ne nañu jox sëriñ ci ni dédé sëriñ si na leen jox lu seen ak sëriñ si nañ leen jox lu seen ak li ñu mën pour ñi bay di dund di ci jaamu yàlla waaye bu ñu jël jenis bi yépp jël bay bi bu ko concentré ci ay sëriñ loolu d'accorduma ci tey d'accorduma ci ëllëg te duma seetaan kenn def ko suufu Sénégal yaatu na am na région yoo xam ne day taw bu baax seen bu ñu leen defaree forage Casamance li ngay gasee forage ci le nord du Sénégal xóotaay bi doo egg ñun suñu napp phréatique doo gas lu bëri suñu teen yi rek suñu teen yi boo génnee ndox mi nga naan rek yow da ngay ne lii ndoxu lal la suñu teen yi rek ndox mi boo ko naanee jaayda boo ko naanee yow da ngay ne lii ndoxu lal la ndoxu teenu Casamance moo gën te moo gën a neex sa robinet yële robinet Ndakaar yu ngeen di naan

boo leen fa demee Sénégal yaa xam noorlu Sénégal nga jóg mun nga fa lijjante taxaw nga lijjante ko ci normal nga am fa sa terrain dëkk comme ñëpp ngeen dëkk comme ñépp di ngeen fa am seeni tool ngeen di bay di ngeen fa jiw seeni fruit amul fenn fooy jiw fruit ci Sénégal dégg naa mu ne kilifa ne fruit yi comme Maroc lu mu amee fruit fruit ban fruit ngay jiw ci ci désert bi ba mu nangul la këju këju rek këju dar kese dar kese dar kese fan nga koy gis ci Sénégal muy sax dar kese kilo bi mo gëna a seet juróomi gerté gerte le kilo à 200 dar le kilo à 1000 francs la dem len Casamance dar kese kilo bi rek luy saalum di bay ci te kilo gerte xam ngeen ko ñaata la mais kilo dar kese rek kilo dar kese rek mille francs la kilo gerte 250 léeg-léeg ñuy négocier ça pour mu egg 250 waaw loolu lépp doo leen ko xool waaye di wër ci plateau télé yi di pen di njëkkanteeg nit ñi moo tax ma ne kilifa il faut arrêter loolu laa indi woon na gars yi balaa maa tàggoo nag ma ñëw jeexal leen ci. ci benn waay joo xam ne ñu ngi koy naan ab sëriñ la tey xam naa moom dañuy ne ci sëriñ si la jóg te man waxuma fi benn sëriñ ku fiy sëriñ sëriñ lu laay wax am na benn waay daal buy di sol gërëm buy rëy xale bu ndaw la nag xale bu ndaw la nag nanguwul liggéey nanguwul def dara di chantage nguur yi déy nee na dafa dem jàng ji école pour dégg rek uniquement pour muy làkk français amul xam-xam amul xam-xam Moustapha Cissé doon na ko fi wax fi ci njabar <laughs> yi fi baayam daan def <laughs> Sénégal nit ñi dañuy dodof lu rek am na benn waay <clears throat> Moustapha Cissé doon na wax baayam ci njabar yi ci njabar <laughs> yéen a ngoy fàttaliku yéen a ngoy fàttaliku waa ji moo jóg <coughs> waa moo jóg amul xam-xam ci alxuraan nee na complexe bi mu doon nee na dafay dem jàng yi pour dégg uniquement pour muy làkk francais <laughs> waa jooju de moom la fi Moustapha Cissé loo doon fàttiliku moo tax xale moo tax may ñaan ay sëtu Diop Fall na fi doomam gudd fan dañu koy wax démb ya juutalu yaayam waaye kii moom ki ma leen di wax nee na la ay gërëm bu yu rëy lay sol nag di xuutali xuutal di xuutay xuutar comme jasit <laughs> c'est un caïman ce gars ay grand boubou yu rëy la xale bu ndaw de xale bu ndaw ay grand boubou yu xuutari xuutar Moustapha Cissé Lo nee na jàngul alxuraan amul xam-xam ci alxuraan lan la def gis nit ñi di làkk français mu daal di daw nee na mu wut ay profit ay maître ay enseignant ñu koy jàngal uniquement la langue français léegi jéem naa dugg ci langue français il essaie de un peu parler le français waa pour mom <laughs> waa pour mom il est au sommet il est au sommet xam ngeen waa may wax bindé len turam <laughs> ab benn boy la de nanguwul liggéey nanguwul xey mom da ci gouvernement bu falu lay tok di ubbi gémmiñ gi comme xaj comme xaj di songu gouvernement bi mais il perd son temps bo leen xamé kal vie compté boo leen xamee kan la bindal leen ma turam boo leen xamee kan la bindal leen c'est un gars quoi il dit il disait que il dit que il disait qu'il est un marabout ay grand boobu yu xëy lay sol Moustapha Cissé Lo nee na amul xam-xam jàngul alquran un waaye Moustapha Cissé nee ne Moustapha Cissé Lo de moo ne waa ji amul xam-xam jàngul baayam ci tuur yi la doon nekk ci tuur yi muxo nee ne baayam muxaaba la waa ji daal bëgg moom daal day toog moom la ñi ñi dina toog muy dox ñu ngi lay observer bu baax boo leen xamee tuur bi bind leen ko yéen mi di ma déglu xam ngeen ko ba dee yéen a gën a xam kan laay waxal mooy sa soi-disant sa goos la di xas di xas Pastef léegi moom ñoom laay wax dem nañu bi léegi ah gis nee Bassirou gis nga bi ma gisee Bassirou dem ci sëñ Mountakha lépp dañ koy mbubboo dañ koy mbubboo lépp seen seen lépp dañ koy mbubboo ci sëñ si ñii ñii di ko mbubboo ci sëñ Mountakha ñii di ko mbubboo ci sëñ Touba ñii di ko mbubboo ci El Hadj ñii di ko mbubboo ci Baye Niass ñii di ko mbubboo ci xalifa bi xalifa ti tiwaawo ni loolu loolu mooy seen point foofu bi ma demee bi ma gisee Bassirou Diomaye Fay dem ci Seigne Mountaga fóon loxo bi hein, vraiment nek fa vraiment lay jàppale boy dégg naa ni dégg naa ni dañu bëgg séparer dañu bëgg a premier ministre doole affaire yooyu yëpp ki mu ci wax nee ne day kaas xam ngeen kan lay wax moy ñu koy naan Seigne Bousso Dieng Seigne Modou Bousso Dieng Modou Bousso Dieng am ay ay sëriñ ñu koy naan ñu ngi koy naan sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Modou Bousso yow peine peine perdue ngay def dinaa la wax lenn yoral sa làmmiñ nga tàllal ko tàllal ko ba mu dama ne ree yoral sa làmmiñ tàllal ko tàllal ko ba mu gudd waaye dinaa la waatal ci suñu borom di waatal la ci barkis watal la ci barke une Touba seigne Modou Bousso Dina la watal ci suñu borom la ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waaye la Cheikh Bamba billahi wallahi tallahi ça ne passera pas avec ce gouvernement takkal nak sa ba mu man grand boubou yi ngay sol ni nga futteeku un gosse rien du tout comme toi futteekul nga dem liggéey dangay ngay futteeku par force nga dem liggéey les salaires fictifs laa yi ñu leen di feeñ yi ñëpp xam lii yëpp day dagg di nga wax ba sa di nga wax ba sa làmmeñ wadd nga foraat ko dangay ngay futteeku dem liggéey comme ñoom suñu sëriñ si sëriñ Cheikh Coro Mbàkke li muy def xale bu am jom la sëriñ Cheikh Coro Mbàkke sëñ kii sëñ Asan Mbàkke ay xale yu am jom la ay xale yu am jom lañu bëgg seen bopp gëm sëñ Touba lu dul li sëñ bu Touba waxoon rek Cheikh Ibra Fall waxoon ko rek futteeku ñàkk njariñoo mais du yor sa làmmiñ woddoo sa làmmiñ sa làmmiñ bi lañuy ñuy wëndeel si sa gat bi danga nga saañ ko Tu nous amènes, tu n'as qu'à la boucler. il y fonto nini, un yaï de nini. Un charlatan comme toi là, fassi Sisselo le disait que tu es un charlatan. Tu n'as qu'à la fermer, bon, on défaut, si nous rouleau compresseur, kadoul si se donne On va t'écraser comme un chien. Damane. ñun munoo ñoo jaaxal ci sëñ Tuuba sëñ Cheikh Coro Mbàkke munu fee nekk yow nga bugg ñoo jaaxal ci sëñ Tuuba sëñ Asan Mbàkke bala ay sa munu fee nekk yow nga bugg ñoo jaaxal ci sëñ Tuuba déedéet du sotti ñoom ñu ngi futteeku nangu nekk ci dëgg demal nga simbi sa grand buubu yi

dagg leen audio bi mu egg ba ci ba ci dënn ba ci dënn sëñ nan la tuddati Modou Bousso na egg ci ne gouvernement bi bu ñu fonto yow dañ la ne bu ñu amerde bu da ngay futteeku par force dem ñi liggéey réew mi fii ba fukki at wala fii ba trente loo am danga koo ñaqal sa bopp mais du sa làmmiñ bi dégg naa ne maa ngi nuyu Assane Mesere ñoom li ñuy wax dégg nañ ko sa làmmiñ bi da ngay futteeku dem liggéeyi du ay sol grand boobu nga ñuy jaxal loolu ñuy dimis xool dañ ko dimis fii c'est passé sur nous na nit sol grand boobu di xuutal xuutal ñuy jasit boo ñëwee ñu ubbi la futti la ba nga set nga dem liggéey gaa yi loolu laa indi woon tey waxtaan ci ak patriote yi ngeen bàyyi xel nag ci li ma leen wax nag bu baax a baax a baax wax réew mi ñoo ko bokk dañ koy liggéey cette fois-ci avec ce système là ça ne passera pas changer système sénégalais yi ñëpp am lu ñu bokk ñëpp njariñoo ci loolu mooy li président Ousmane Sonko doon wax lu ñëpp bokk ñëpp jot ci ñëpp am ci waa ñëpp jot ci lu ñëpp bokk ñëpp kenn du fi dem jël ay xale jox leen ay sëriñ ñi leen di liggéeyloo ba xale yi màgg deeli c'est fini xale yi nañu tabax ay centre de formation l'agriculture maçon pêche moo xam l'élevage lu ne ñi former xale yi ba pare daggal leen ay parcelles xale yi dem ñi daggal xale yi yëpp ay parcelles xale yi dem ñu jox leen ay ay tool xale yi di bayal ñi jël suuf si def ko si seeni tur turu xale yi turu xale yi ndax dañuy am ëllëg jabar am ci doom bu ñu dee seen doom yi donn leen ci seen suuf soosu bu màggal jotee bu bu gàmmu jotee ñi bàyyi tool yi benn bés la ñu dem ziyaari seeni sëriñ yi delluwaat seen tool yi bopp point mais du ñu jël l'agriculture dem buus ko bàyyi ko sëriñ si xale yi dem di leen di liggéeyal loolu c'est fini loolu c'est fini kilifa loolu laa indi woon nag waxtaan ceeg yéen yaay maa ngi leen di ziar na di leen bàyyi na li <laughs> Abdel Kader jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf Abdel Kader maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nag dëgg moom réew mi moom il est ñun ñoo ne système bi dañ koy changé bu ñu gisee luy ñëw bëgg a encouragé système bi dañu engagé ne naa leen suñu rouleau compresseur xajul ci mbindeef ci Sénégal amul ci rouleau compresseur des patriotes xajul ci benn mbindeef ci Sénégal nañu aar suñu président tettalal ko gunge ko ba fu muy egg ba ñuy am ndam bu ñu bëgg a changement total comme lu Rwanda nekk wala ñu am réew bu mel ni Qatar wala Dubaï.

amoon na ñu ëpp amoon na région boo xam ne xale yi xeex bi pour liy taxaw tey amoon na ay xale région bu ëpp bu mu joxe sangam joxe directam ñu dóor leen ay bal fital loolu fan la ngeen koy teg loolu foo leen koy teg la région de la Casamance xale yu ñuy tiim ay fital di leen di dóor ñi boobu Casamance moo ci ëppale ñi ci dee ñooñu foo leen di teg ah ñu naan région léegi ñu ngi dugg non non ñii ñoo ëppale ci ñi ñu voté loolu nan la koy nit di nattee

bu nit kenn du dara région bu région bu les huit pôles ont ñuy def huit pôles nañu xol distribuer tous les biens doomu région yëpp dans doomu sénégalais yi point mais ku fi ñot di ñot di dara ñi indi la loo xam ne di nga tëj sa gat fait che Modou Bousso yow bi

doonoon naa sama live bol dama ne yeen kazamas yeen a fatou sama live dama ne bu fekke pour libérer réewu Sénégal ci sen deret lañuy jaar pour réew mi mun libérer rek ñun Casamance ñun on est prêt nous sommes prêts à donner notre sang da ngeen koy fàttali ci live yele ndax fo doonee doomu Casamance yi ñu dégg la ci Casamance nga paw lañ lay def fitam ñoo upp ci ñu ñu massacre direct doo dégg ñoom ñi wax ñu ngi ne teg waaw ñii ñoo dem sandi rek waaw ñoom ñoo war a kii liñ leen war a jox fii amul ministre fii amul ministre xale di ngeen jàmmaaloog ñun de ñu ngi leen di xaar jaajëf patriote yi jaajëf maa ngi daw bu kenn ne nag sàngara laay naan bisaab la bisaab xam nga ñoom booy live boo leen dalee rek boo téye seen xuur yi rek amuñu fu ñu lay jàpp rek dañ naan xoolal pourtant bi muy wax sàngara lay naan bisaab la bisaab xoole yi bisaab la de bu ma kenn newoon sàngara la bu mag ak ni ma faralee catholique yi tam ñu naan ah moom de gisoo kaas bi mu yor sàngara la doon naan xam nga ñoom ay doomu xaraam lañu lu ne bu buñ la mënul jaar fenn dinañ la takkal lu ne bisaab la bisaab maa ngi naan bisaab voilà bisaab la de moom laa ci xaar ma defar ngeen gis ngeen xam ne bisaab la te ñu yóbbu la foo xam ne <laughs> man sàngara mosuma xool naan bi ma juddoo Har, ay doomu koo ci téye xuur yi ba mu dëgg ba gis ngay nan ndox sa kaas ni ah bu muy wax ni sangara la doon na fekk bisaab lay na wala ndox <laughs> dañuy dodd lu rek sénégalais fo nga xam da jaajëf gaay yi nan ko bamu mu jeex balaa ñu ne gisoo bu muy nan bala muy couper sangara si la doon na ma ngi nan bisab ma ngi nan bisab ah. bi nga gars yi jaajëf maa ngi leen di ziar yéen ñëpp jërëjëf.